Viticulture. fas on dekk la bu nekk ca Kaolack jamono ji kon mo ngay gën yëngu sabab li modi kon dafa am doomu adama bo xam si dañ ko daldi fat talibé po Baye ñass la te it dafa am nationalité euh, américaine dinañ fa daldi di fekki kon Cheikh abdourahman ñass nekk doomu Baye ñass mu lu ci ay leral euh, lu jitu loolu kon démb ñi la di euh, faré ci collectif ño lank ño bañ ñi ngi doon wër mbedd di yi doon amal lem flyers Cheikh Thioune nekk kon président mouvement fier di daldi di lu mbir mu ni mel te daldi gis ni kon ah, mbéjum kanam borom moo koy ah, fajal boppam ah, cell ji Idrissa Seck nekkee Thierno Bocoum nee na kon loolee wërta bett kenn te it ko xam Idrissa Seck xam ni yàgg naa doxale noone moo nekkoon na ganuk 9 11 di ngeen dégg itam ci bile jotaayu xibaar ji bi Diakhaté xalaatam jëmale jamono ji ci njàng mu kawe mi reportage bi tey ñu ngi ko jëmale kon ci euh, permis yu jeex yi ak jamono ji kon sofor euh, yi nga xam si amaguñ permis yu yees yi nan lañ koy dunde ak tak der yi ci kaw tali bi li mbokkee ak leneen buñ ci noppé dinañ ci bolé ne ponk ba ci biti rew tagat yaram soga dugg ci patch bi nu jagle la ak mu gën ci afos kon BRR euh, production bi nga xam si mi ngi waajal app spectacle bi lay yon nak da ko japp ñaar fukki fan ak ñent ci wéru janvier bi ci centre culturel français ya. ñu daldi di wax tamit leneen ci lay jotay xibar jëmele ko ci patch bi nu jagle la adak ciosan mu di ko kon Cheikh na nekk kon ab ndaw boo xam si day yëngu ci wàllu musique ak single bu bees bu mu fësal euh, duppee ko démb ak euh, tey nataal po Golbert Diagne euh, gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi. Mediculture Serigne Sall Seck ngén ci andal mam ci mbékté ak contentement bu mak di len ko faram-fàcceel na ma len ko xé ci bob ba rek lay duggé ngeen ci yatal gi ak kon euh, Fatou ko doomu amel l'Amérique bi lé di euh, Mohamed euh, Balao Kabir Cissé moom nag ay defkati ñaawteef ñoo ñoko fekk ci fas ka won nga mu nékkon mom ak wayjum wu gor don fa nopulo dal di dal ci sen kaw bam bañ koy rawalé ji l'hôpital kon jot na faa sax yegg dafa dal di ñak bakanam wayé nak ñu bari ño xam si ñay yéwo jamono ji fofé ci diwaanu Kaolack rawatina njabootu ko Baye Niass mer ba futt lañu def kon jëmale ko ci ah, docteur yi nu gis ni kon taxawu ga daal dina ci ah, daal dinay des bu baax a baax naam ni kon ñi la di ah, docteur ya démb génnoon nañ di leeral ni kon la leen waroon def nañ ko ñu teewlu ci loolu kenn ci doom yi Baye ñas di Cheikh Abdourahmane ñas gannaaw jokkoom ak Ndeye Mati Dieng ñu wax inna lillahi wa inna ci xew-xew bi nga xam ne moo xew démb Madina muy xew-xew bu métti ndax euh, ab jaamu yàlla bu baax moo gàddaay woon jugee dëkkam ñëw ma Medina Baye wax dëgg yàlla am ngir dëddu àddina jox boppam yàlla wax dëgg yàlla am ak yaakaar nga xam ne foofu la jaar ba ñëw ci buntu daana Cheikh Ibrahim mooy buntu Imam Hassan si dëgg yàlla am ñëw jébbal boppam yàlla ci bunt yooyu ba yàlla def lii nga xam ne moo ko fi dal wax dëgg yàlla am te nekkul woon loo xam ne lu mu séntu woon la wax dëgg yàlla am ci moom ñu koy méttitlu lool lool lool lool lool lool waaye it wax dëgg yàlla am ñu ngi koy méttitlu bu baax a baax ndax ñun image yi rek lañ gis ànd ak it ne Medina lañ dëkk gëmuñu woon sax na lii mun na faa amee ndax mosuñu woon a gis lu mel ni am Medina rawatina nag ci ki nga xam ne fa la amee wax dëgg yàlla métti nañu lool image yi bañ ko gisee niñ ko gaañee ak niñ ko gàddee ak ci moom ci deret nee nañ papaam ci lañ ñëwoon commencé ci moom wax dëgg yàllaam muy jug di dimbale papaam far ñoom ñu bo ñu boole ko ci wax dëgg yàllaam dégg nañ léegi sax ne moom mi nga xam ne moom mujjoon a génn àddina dégg nañ léegi ñu ne papaam moom it moom ci boppam euh, yàlla moom na ko ñu ngi koy métti lu lool lool lool di ñaan gouvernement ci jiital président Macky Sall mu taxaw ci sécurité kër sëriñ si te xam ne li fi commencé xew ni nekkul loo xam ne mu ngi daan am te rafetlu wuñ ko bu mat jël matukaay réew mi rawatina ci kër sëriñ si ndax lii buñ ko bàyyee mu law dem wax dëgg yàlla bu beneen yoone lu ëpp li mën naa am te lu ëpp rey sax moom amut danañ wane suñ naqar incha allah démb ba léegi ñu ngi koy wane ci suñ xol ndax ci jëmm deena suñ yarab na li nga xam ne nag wax dëgg yàlla moo ci des mooy ñu wane ko li nga xam ne ñoom ñoo def lii président taxaw ci ba nga xam ne danañ leen téye ndax loolu dayu ko gon moom ak gouvernement am bu ci taxawee rek incha allah danañ leen li war sax ci ñoom mooy ñu rey leen kon ni ñu reyee ñi mi ngi noonu nekkoon kon kàdduy euh, Cheikh Abdourahmane ñas nekk doom ci euh, Baye ñas moom nag mi ngi doy dikkaat kon ci njombe li nga xam si démb ak tey moom la ñuy waxtaanee foofee ca Kaolack dinañ ko daal di euh, gën a topp ñu wax kon ci li nga xaw ni ngi démb la doon am mu di collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag démb ci beddi Ndakaar yi la ñu wàccoon doon séddale flyers sabab li moo di ni tey di xeex kon li nga xam si moo di njëgul courant bi nu yokku Cheikh Thioune nekk président mouvement FIER du front pour l'inclusion et l'éthique pour la république moom dek euh, mouvement bo xam si day jappal tank Khalifa Babacar Sall ne comme niko sen yit njiit di Khalifa Sall la koy defee mu di gëna a taxawu collectif ño lank ci xéxu courant bi ñu tewlu ko gannaaw jokkoom ak King FM. soo wolof di waxé rek mbéjum kanam borom mo koy fajal bopam té dañoo mbéju askan kon askan mo wara taxaw pour fajal ko bopam ci kaw lolu kurel ño lank ño bañ képp ku Sénégal ñor képp ku développement Sénégal ñor ak yorinu Sénégal wu sell ñor war nga leen a taxaw jàpp ci li nga xamante ne si moom la ñuy xeex ndax dund courant daf ci nekk lu primordial courant daf ci nekk lu nga xam ni mënul ñàkk kon lu mu gën a jaare ci anam yu mu gën a mucc ayib rek day daal di gën ñu koy caxat-caxate wala ñu koy def ci anam yu nga xam ne ñun askan wi daanaka day metti ci ñun lool lool lool lool lool kon bu kuréel googu taxawee duñ def lu dul rafet rafetlu doxalin bi te tamit ni noonu la parce que Sénégal Sénégal ñëpp la duñu bàyyi kenn mu ñuy conditionné wala mu ñuy teg lu nga xamante ni ci ni daanaka euh, dund gu dee gën lay mu doon ci askan yi rawatina ñun ñi nga xam ne àll bi di soog a ñam courant euh, nuyooguñ ko sax wala boog suñ courant yi sax demeegul na mu demee ñu ngi indil yenn fitna yi bu boobaa dellu la am pétrole sax dañuy daal di gën a kàddu yi ceex euh, Cheikh Thioune bokk kon ci euh, parti Khalifa Babacar Sall jiite tamit mouvement bi lee di euh, fier ñu wax ci Thierno Bocoum moom tamit tey jii moo nekkoon gànnu ko 9 11 moom li mu daal di xamle moo di cell gi Idrissa Seck nekke naam ne du ca sori ndax nekkatut ci parti réew mi waaye ku xam Idrissa Seck xam ni stratégie la boo xam si yàgg na ko daal di doxalee moom Idrissa Seck wax moom Thierno bokkum itam yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci ñi nga xam si ñoo di gars yi fare ci ku jégeeg taxawaay bi ñu war a am ñu lu ko moom euh, Thierno Bocoum kàddu yi ñu ngi ko cofee ci 9-11. xam nga komba politique moom suñu réew yàgg naa yàgg na fi. ku si ñi si ñun acteurs politiques yi. am na combat yoo xamante ne ne sa morom teew na fa yow teewoo fa. que ça soit actuellement que ça soit dans le passé. Mhm. te pourtant boobu yow sa bopp nekkoon nga si réew mi. li ma bëgg a wax mooy man Thierno Bocoum c'est pas parce que ñëw naa fi ñoo lànk ñu jàpp ma et cetera. Mhm. dama war ne leader yu ñëwul foofu yëpp waruñu woon dañoo waroon ñëw et cetera wala ba am lu ma teg seen kaw. Mhm. parce que peut-être ñooñu am na benn moment ci vie politique bi jël nañ ay combat nekk au devant di ko xeex te man teewuma woon moo tax man dama gëm na ne kenn moo mën a arbitrer mooy le peuple sénégal ku si ne yaa xam sa yoon booy jaar je pense que ku ne ne respecté yoonam loolu moo am nekkoon kàddu yi euh, Thierno Bokum seqoon waxtaan wu yaatu ak euh, Kalzak rédaction nga FM ndax moo nekkoon tey ganuk 9 11 ngeen di wéy di déglu mi di Culture ci rajo ki King FM di moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili.

waaw daje bi dañ doon waxtaan ci njàngale bi nga xam ne ñi ngi koy def ci daara yu mag yi ban jeexital la am ci liggéeyu ndaw yi parce que euh, xale bi bu ñëwee di jàng ba am baccalauréat dem ci daara yu mag yi di mottali jàngam li nga xam ni moom mooy euh, bëgg-bëggam mooy bu ci génnee mu am liggéey mais li ñu gis mooy léegi bari na xale yoo xam ne bu ñu génnee ci daara yu mag yi problème bi ñu njëkk a am mooy liggéey donc liggéey nag dañ ci gis ñaari fànn bu njëkk bi mooy nguur gi jël la euh, wala ku am entreprise jël la nga fay liggéey boobu la ñuy wax salarié maanaam yow dangay ngay liggéeyal euh, kenn koo xam ni weer wu jot mu lay am payoor bu mu la jox beneen bi mooy yow nga defar sa mbiru bopp maanaam nga defar sa bërëbu liggéeyukaay bopp boo xam ne yow fa ngay liggéey di fa suturlu mën nga sax jël ay nit yoo xam ne dañ fay liggéey ñaar yooyu yëpp baax mais li ñu gis mooy liggéey bi nga xam ni moom ngay am payoor weer wu jot léegi dafa jafe nguur gi daanaka jëlatul Euh, entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk daanaka jëlatuñu donc li nga xam ni moo fi sës comme wolof day wax ni euh, yaa fi sës mooy taxafalu li nga xam ne moom moo fi sës ñu fexe ba xale yi mën a defar seen bërëbu liggéeyukaay bopp mais loolu tamit buñ ko waxee dafay yomb ci wax jëf bi dafay gën a jafe parce que dafa laaj euh, xale bi ñu gunge ko ñu ñu jox ko ay jumtuwaay yu nga xam ne moom mooy tax bu mën bu jàngee ba pare mu mën a defar loolu dafay laaj tamit ñu jàppale ko ci mbirum koom financement dafay laaj ñu jàppale ko ci mbirum taxawaay dafa laaj ñu jàppale ñu munu xam yoon mi nga xam ni fa la war a jaar pour yegg foofu mais ñu jàpp ni ni mu amee ci yeneen réew yi nga xam ni euh, nit ñi ñi ngi doxal lu mel noonu war na mën a am ci suñu réew am na fi nag am na ñi nga xam ne ñi ngi koy def mais dañ ko war a organiser ba pare jàngale ko boo gisee bawol bawol bi lu muy def loolu la mu kon kaddu ya professeur Djibi ya Jaxate reportage bi tay kon ñu warona waxtane ñi nga xam ñoy euh, dawal kat yi ak permis yu yag yi ñu yoré jamono ji jotagun ci sen permis yu bes ak na doxale ka tak der yi lolé kon yembagul jombul dinañ ci dikkat ci sunu yeneen jotaayu xibar midi mo jot ba tegal fukki simili ak ñaar ca stade la Dior ba nek ci Thiès. le sport. Now, sports. bàkk boobee kon xibaaru tàggat yaram yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. di am mbégte euh, daal di retrouver la ci journal bi ñu war a waxtaane wàllum tàggat yaram wàllum tàggat yaram boobee Pape Sarr dañ koy daal di euh, tàmbaleek Sadio Mané ak Liverpool ak seen jonganteeg tay bi jonganteeg tay League mu war a doon ndar keppal euh, ñaar fukk ak ñeenteel yi bëccëg bu championnat d'Angleterre ñoom waa Liverpool yi fas yéene dem fekk ji Wolverhampton ca dëkkam match bi bu juróom-ñetti waxtu ci guddi gi jotee lay doon Liverpool ñoom Sadio Mané nga daanuf euh, des ci euh, googe taxawaay démb nag ci fàttali Tottenham moom dafa daan Norwich ñeenti bal ci euh, benn Leicester daan West ñaari bal ci benn Manchester United daal di lajjati ca dëkkam Burnley moo ko fa fekk daan ko ñaari bal ci dara ba tax ñoom waa Red Red Devils yi jamono ji ñu ngi ci crise gu metti ca France moom Coupe de la Ligue léegi xam nañu final bi ñan ñaar ñooy daje Euh, Lyon mu qualifié woon na ni kii ki euh, démb démb la ko Paris Saint-Germain fekk ca final ba ñoom parisien yi dañoo daan Reims ñetti bal ci euh, dara ca Espagne ñoom it ñoo nga doon jouer match coupe du roi Barça ak Real yëpp ñoom qualifié nañu ci huitième de finale yi bu fekkee ne FC Barcelone euh, donte sonnoon na waaye mujj naa daan Ibiza ñaari bal ci euh, benn ak doublé bu doomu France bi di Antoine Griezmann Real Madrid moom dafa daan ñetti bal ci benn équipe bu euh, Salamanque ñu daal di woyal Serigne Saliou. ak ñi nga xam ne moom moo di wàllum euh, bëre ak championnat d'Afrique lutte euh, ba fas yéene amee ca Algérie gaynde yu Sénégal yi nag ni ki démb ñu nga ca wàccaay la ndax amal nañu ab regroupement euh, fermé moo xam góor ñi jëm ci jigéen ñi ci wàllum catégorie senior jàppaleen na it championnat d'Afrique yi war a amee ci Algérie ci wàllum bëre ñaar fukk ak ñett ci réew ñoo ca war a bokk ñu jàpp ko ñeenti fan jàpp juróom ñeenti fan ci weeru février Euh, euh, complexe olympique Mohamed Boudiaf euh, ba Alger réew yi Nigeria bokk ñu ngi nigeria Soudan République Centrafrique Égypte Madagascar Maroc Côte d'Ivoire Namibie Tunisie Afrique du Sud Guinée-Bissau Ghana réewum Sénégal ma nga xamit ma nga Sierra Leone Burundi Burkina Faso Kenya Benin Angola Guinée Cameroun ak Congo xanaa ñu jeexale ko ak rugby ak euh, ndaw Sénégal bii di Madiagne Fall mi nga xam ne moom euh, ab ndaw la di yëngatu ci wàllum rugby fii ci Sénégal xaatima contrat euh, ci club bu nekk ca France club euh, Corse ñu naan ko Balagne mu doon nag ak signature goo xam ne mu ngi tukkee ci ab programme bu fédération sénégalaise bu rugby daal di teg ngir rek mën a tàggat ay ndaw bu ñu demee ba xaw a am mat tuuti ñu yóbbu leen ca tugal ngir ñu wëyal foofee seen expérience gën a yokk seen ndëgër laay ñàkkul daanu ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaayu xibaar sëñ Saliou fii la ñu yem tey euh, ci xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax papa ma jaxate saar ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram gi. xibaaru caada dañ koy tàmbalee wax ci BRR euh, production ñoom nag ñi ngi waajal kon aspect spectacle bu mag daal di koy euh, nama amale kon fële ca centre culturel euh, français ñoom nag li ñu ci daal di bëgg moo di gën a lawal wàllum aada ak cosaan taxoon tamit ñu koy waajal bu baax a baax benn ca seen bësi waajal yooyee teewoon na ko Aminata Ba compte rendu. Il leur explique ce qui est la polygamie. Ça les prépare psychologiquement à accepter nos conditions. Et c'est ça qui compte, être bien informé oui merci merci merci beaucoup M. Diallo. jouer à sketch projeter ay film ba ci et micro trottoir les six acteurs UBRR BRR production dont répété deux Ben waxtu ak genn wal Billy et Léa, beaucoup d'acteurs acteurs yi duñu et a nous ak Moi, ñuy une euh, pièce de théâtre boo xamante création bi maison de production une double production nous avons koy def création bi mu nekk loo bon depuis trois moi, je suis de collègues. Je un spectacle qui a duré 1h30 ou 24h janvier du vendredi prochain il euh, y am aussi CCF mooy centre culturel français pour lañ ko wara jouer le débat nak tam la boo xamante ne la concerné société bi ñepp la concerné ndax li ci ëpp ñu ci débat ci li nga xamantene moy digënté diggante ak jigéen ak poly polygamie ak monogamie waaw comme ni nga ko C'est un spectacle bi ñu duppé le débat polygamie di thème bi ci gën a fës Bérangère Brooks di en scène bi. alors en fait c'est une commande au début moi ça fait longtemps que je fais des spectacles sur la société sénégalaise, mais aussi africaine, enfin voilà, et ses relations à la mondialisation. Et là, on est venu me chercher pour écrire sur la polygamie. Euh, c'était pas évident au départ pour moi, mais c'est vrai que ça fait quand même longtemps que j'habite ici, et j'ai pris cet angle de débat. Je me suis dit, voilà, c'est un débat de la société sénégalaise, et c'est aussi un débat intime au sein du couple, euh, puisque c'est un choix qui finalement ne concerne euh, que le couple lui-même. Oua, BRR production du 24 janvier 2020 bi Dekmel, le centre culturel français ñu Narfa Amal, amal spectacle Tach ñuy à askan wi ñu ñëw xool li tax ñuy théâtre jaajëf Ndeye Maty Dieng euh, wala sax Aminata Ba jërëjëf ci boobu lépp reportage euh, ñu daal di euh, wax kon ci wàllum musique ak Cheikha nekk ndaw boo xam si kon day yëngu ci wàllu moom nag ñaari at ak léegi bi nga xamee ni si daal di nay door lu ni mel ba tey moom sax atum 2018 ci bi Youssou Ndour doon amal Saint-Valentin bi mooy kii woyoon première partie ba jamono ji nag mi ngi daal di génne kon single bu bees duppee ko démb ba tey Penda Badji mi ngi noonu kon euh, Penda Badji war a dellu siwaat kon ci euh, doomu Medina bile di euh, Cheikha nekk kon ab ndaw bu yëngu ci wàllum woy moom nag at a ngi nii bi mu tàmbalee ab wàllu woowee ak léegi moom nag daal dinañ koy ràññee bu baax a baax ci bés bi nga xamante si mi ngi doon def première partie Youssou Ndour loolu Saint-Valentin atum 2018 la woon Penda Badji Cheikha ab ndaw la bu yëngatu ci wàllub musique ñaari at ba léegi mu nekk ca ginnaaw bu mu jotee def ñaari première partie bu faa Fada Freddy ak bu Youssou Ndour muy ab artiste buy faral di def style musical yëpp. Cheikha mi ngi débuté carrière am bi mu defee première partie Fadou Freddy Gospel Journey fala fait defee première partie après j'ai fait la première partie de Youssou Ndour ci Saint-Valentin bi mu organisé woon en 2018 ak Viviane aussi donc euh, je joue un peu partout ci milieu yi damay def son yëpp variété la def j'ai des projets en cours incha allah am na ay affaires ñuy waajal pour cette année 2020 donc ñu leen di wax rek xaar la. démb ba tey ci wayu mbëggeel bu mu fas yéene février ñu

musique sénégalaise donc man ci lay dox conseiller jeune oui, euh, débuter carrière am mu xam loolu def ko ci mayanam xam ne euh, on a un défi à relever et dañoo war a jël musique sénégalaise yóbbu ko fu sori. ginnaaw loolee nag moom ndaw Medina bi di xamle ni dina def kéem kàttanam ba gën imposer sur la scène musicale nit yi xam ko def ay featuring ku mel ni ak El Hadj Keita bokk ci ay rêve am. Penda Badji Midi Culture ñu jàll ci bi. Le portrait du jour. nataal bi tey ñu leen di euh, gën a xamalek El Hadji euh, Golbert Diagne moom nag mooy directeur général bu rajo Teranga FM ba nekk fële ca Ndar ci di euh, Saint-Louis nekkoon na tamit artiste comédien dal di def ay pièces théâtrales yoo xam si bëri na lool te mu gën ko caa ràññee kon baara yëgoo faatu Sow. may El Hadji Alioune Badara Diagne ñu may woowee Golbert. doomi jëm si yàlla ajaratu farilu be ndoy ak malal jaañ suma baay borom kumba ndax sàmma ndax di bàkkoo dëkk bi mu fekk baax mu bëgg ko lool foofee moo di Saint-Louis taskatu xibaar la comédien lay tam lu soxal wàllum communication ku si gëstu la ndax ubbi na ab rajo bu mag foofe ca ndax duppee ko Teranga FM jot na fa tàggat ndaw yu bari ci wàllum journalisme dama ne kii wax communicateur la lu la boole ak rajo rajo bëgg-bëgg ak gëm-gëm damay jàngee lycée technique en 1962 63 école bi en 63 def naa 63 école bi. ca RTS 1 le fësee ak troubam bi di baax a yëgoo jot nañ fa joué pièce théâtre yu bari am nañ fa lu mat fanweeri at ak juróom-ñaar yoo xam ni télé bu mag boobu moo leen daan produire waaye payoor gu néew gañ leen daan jox moo waral ñu bàyyi ca télé ba. El Hadj Golbert bokk na ci ay théâtram yu bari yu mu daan fësal ñu bari ci askan wi dañ doon wax dafa nakari deret waaye ku njabootam seedeel oyof xolam bokk na sax te lañ ko seedeel ni daa gaaw a tuur rangooñ. li ma gën a marqué ci moom mooy man kafam ak reetaanam waaw ak gaaw jooyam si am yërmande soo waxee sax mu bënn la ngooñam di jooy. bokk na ci liñ koy seedeel itam defar ay diggante ba ci wàllum politique bi kuy ñaax acteur politique yi la ñuy tegu ci yoon wi théâtre yu bari joué na ko ak turubam bi di baara yëgoo bi si mel ni aw buuru këram ak yeneen ak yeneen El Hadj Golbert Diagne ci ayu bés ñu génn lañ fësal ci réseaux sociaux yi ni daa faatu waaye artiste comédien bi daal di bind ab bataaxal xamal askan wi ni lu wokkul dërëm wokk ko ak salaam xanaa di ko ñaanal rekk gudd fan wér ak wéerle amin euh, Fatou Sow di ko jaajëfal bu baax a baax doonu defal kon tey nataalu nataalub euh, El yi golbeer Diagne euh, dañuy jàll kon tollantil leen li nga xam si moo di taarixu démb tey nag ñuy dellu si ci jaar-jaar ak fàttalik ki nga xam si moo di El Hadji ki nga xam si kon moo di El Hadji Ndiouga Kébé El toog ndax moom sama wëllëre la woon bu rëy ma wax la ko yàlla dogal ndeysaan dama ko daan wax ndakaaru ñetti jigéen a dégg tubaab mu dama ñaan ma ni ko yow ak xaaj Maxtaar Baabu ak man seede yi almaxtum yi rekk doy na sëkk ngir wane ni ndaanaan la boo xam ne jar nañu koy waxtaanee mu bëggoon réewam boole ci doon doxal koom-koom bi ndax naka ci diggante atum 1967 ci bi muy door liggéeyam ba ci ni mu fi bàyyeekoo El Hadji Ndiouga Kébé dugal na fi lu ëpp ñetti téeméeri milliards ci xaalisu CFA Ndiouga kebe tur la boo xam ni du masa fay te li ko ko may bokk na ci dafa amoon loolu xarañte boole ko ko xel mu ñaw ak pasteefu looloot moo ko mayoon mu bokk ci nit yi ëppoon teraanga ci réewum Sénégal Sénégal El Hadji Ndiouga Kébé moo ngi yaro ci ëttu diiné yi ba tax mu jang alcorane ba di wu aduna, mo ngi juddo ci Kaolack atum 1914 wayé ñu ngi ko gëna ragné ci yoonu murid nékkon itam talibé bu doon yëngu ci walum jënd ak njaay ci réewum Sénégal ak liko wër atum 1939 ci la Ndiouga Kébé tambalé di tukki fekk boba tombek ñaareelu guerre mondiale lolé tabalon kom kom bi ci aduna bi mu taxaw wayé ci ay jafe-jafe ci la delloo ci Gambie di tambale jaay ay marché marchandise ci diggante ñaari dëkk yi waaye atu 1942 ci la Ndiouga Kébé jugee Kaolack dal di utali Tambacounda ngir yeggalee fa am njaayam gannaaw loolu ci la woyaleb tukkeem diiru fukki at soogaa dellu si ci réewum senegal ngir taxawal fi ay mbiri boppam atum 1970 mu dugg ci immobilier nekkoon mbir moo xam ni jafe na woon lool ci yooyu la jamono ci noonu mu xam lu ni mel taxit mu daal koy tàmbalee ca dëkk bu sell bii di tuuba fexe ba ndox mi askan wi daal cay jot yamul dugal na loxoom ci defaraatu jumaay Touba ci jamono yi Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom El Hadji a kebe nekkul ni loolu rekk la fi def ndax nag yoon bu njëkk bi nekk fii nii ci Almadi moo ko fi taxawal def fi itam hôtel Les Almadi laataa muy taxaw ci courant bi ak ci ndox mi ci bilépp barab El Hadji Ndiouga kebe itam doon na jàppale nguur gi ci ay tabax ci gox-goxaat yi waaye barab yoo xam ni biti réew sax dañ ko doon soxla milliardaire bi ku ko déggul itam dégg nga Palais Ndiouga Kébé wala immeuble Kébé fukki fan ñett ci weeru mars atum 1984 ci la fi El Hadji Ndiouga Kébé bàyyeekoo ñu denc ko ca dëkk bu sell bii di Touba waaye boobaak léegi aw turam du masa fay ndax jëf ji mu fi jot a def taarixu demb fii lan ci yam ak yéen ba jàll ci gan yi xibaaru caada mi ngi nonu culture ganu xibaari ganu xibaari tay dañuy dalal kon bi bile di ah, bi aisha mom nak dafa dal di ah, génne niki décembre bi ñu wessu app way ah, bo xam ci mi ngi dal di lekkelo ak groupe Gelongal ba noppi nekkoon ay bëgg-bëgg modi di nekkoon di yobbu li nga xam ci modi di musique Sénégal bi fépp ci aduna bi bi aisha laaj ak tontu doxna digënté mak papa ma jaxaté sar bi aisha ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay. te ya nek suñu ganti Culture ndax mën nañu xam ana kan moy bi Aïcha pour ñi la xamul. bi Aïcha jeune artiste la qui est entre le Sénégal et l'Italie bu nga xamantene dafa màgge Italie di jang école nek ak famille am donc voilà non la dem di dem amour passion musique ba xamanté ak euh, gelongal voilà ñom la nek di liguel actuellement. bi Aïcha kañ nga tambalé way depuis que j'étais petite je me rappelle même pas parce que je chantonnais tout le temps avec mes ay grandes sœurs way wayantu tout le temps vraiment j'ai compris que ni euh, musique moy lima bëgg moy li nga xamante ne daf may dundal passion bu énorme depuis lor yaa ngi def sa bonhomme de chemin euh, boobaak léegi lan nga jotagum def avant gelongal dama doon foowantu c'est-à-dire que foowantu su ma amee benn inspiration rek ma génnee ko et j'ai eu faire trois singles yu ma doon foowantu rek dama doon am temps vacances décembre wala après école quoi ma ñëw Sénégal def petit promo dawaat moo tax kenn du ma gis mais là dama ko gën a professionnaliser nekk ci benn maison de production Gelongal nga xamanteni kenn dettu len présenter ci Sénégal té ñu ngi nekk ci ay projet yu yu bëree bëree bëri. benn ci projet yi euh, moy ben euh, vidéo bo xamné def nga ko euh, fin d'année 2019 ndax mën nga ci dik un peu. vidéo bobu je suis en featuring donc dañ ko génnee rek pour may ko sénégalais yi parce que je suis de passage au Sénégal actuellement février mu ngi ñëw Saint-Valentin voilà comme musique déclaration d'amour le sexy girl la do on évite les personnes de danser sur le rythme de la rumba. Bien vrai que ni du rumba, mais on les invite de bouger, de se divertir. C'est lii euh, point bu ndaw la si ci de projet bi def parce que li ñu bëgg def carrément sax li ñu nekk di liggéey du Le style musical bi ngay def yaa ngi tudd léegi rumba euh, bu ñu la doon catégoriser wala boo doon catégoriser sa bop, fan ngay def sa bop ci style musical. man je vais dire world music parce que maa ngi def soul R&B à la base pop music aussi ak gelongal sama ay rythme africain, yi nga xamante ne ñoo nekk fi Sénégal je me suis ressourcée donc euh, je vais dire world music en général. Taïdi, jii lan c'est ambition c'est rêve c'est perspective c'est vraiment de participer à la révolution de la musique sénégalaise africaine loolu moi, sama ay objectif mon rêve bi nga xamante que j'y c'est de participer à ça Et xam les ne liggéey bu métier mettez, métier moo mais lu ma gëm la. révolution bi ça va être quoi concrètement lan nga que ci musique Sénégal loo xam ne nga war nañ améliorer. c'est de faire musique bi nga xamante tay dina mëna voyager nga xamante noir bi blanc bi ñepp kay consommer kuko ko déglu rek da nga ci gis sa bop nga commencé di bouger di jang ci musique bi c'est ça quoi fof la bëgg waxé waxee. Aïcha merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. merci tay nga nekkoon sunu gan ci Midi Culture merci beaucoup et bonne suite de carrière. merci énormément jërëjëf. li si yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck ay xultu ak i ñaxtu daanaka yéenekaay yi xëyandool ñoom ñépp ci leen xëy di wax Sud du Quotidien ci la bokk ubbil yéenekaay bi journal bi ne kuréeli jàngalekat yi bootu ci G7 ràngoo nañ seen mbubbi xaare boole ca yàttikel di ko fëgg ci taabal ji ngir nguur gi fi nekk dégg leen démb bi 10 heures jotee ci lanu dokkuur yi dem ci ab débrayage tey jii ci alxames yu nee nan duñu faste xànc moroomam grève totale la G7 joxante nañ dig daje ca place de la manifestation ngir amal fa doxu ñaxtu riir utali rond RTS te jàngalekat yi nee na li nu bëgg moo di nguur gi fi nekk jëfe lépp li nu xaatimoon ak ñoom journal bi ne li ci gën a doy nag moo di ne bi lépp mor d'ordre gaay yi di jàngalekat yi ni nu ko toppee sax dafa jéggi dayoo classe yu bëri dafa tëju ndongo yi dajaloo di waxtaanu ña ca des utali seeni kër tey lu ëpp juróomi junni jàngalekat la ñuy xaar tey ji ca doxu ñaxtu ba Cheikh Kanté mi yore wàllum wax ak ñoom ci source li mu bëgg te di ko sàkku ci jàngalekat yi rawati nañu bokk ci G7 moo di ñoo ànd ak dal te ñëw toog waxtaan ndax buñ waxtaanee juboo dina syndicaliste yi mel ni ñu koy tontu ci biir yéenekaay bi naan ko ñaata yoon la ñu waxtaan jamono ji danoo sonn ci waxtaan wi tey li nu bëgg moo di nguur gi jëfe li nu jot a waxtaane journal bi ne li wóor te leer moo di ne tey ji waa G7 nee nañ ci mbeddi Ndakaar yu leen jëm ñeneen ñu nekkoon démb ci mbeddi Ndakaar yu ñoo di waa collectif ñoo lànk ñoo bañ Les ko ne opération flyers fépp la gars yi doon amal te it réussir nañ ko yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne gars yi carton yi flyers nu yore woon yépp fexe nañ ba séddale ko ci ni nu ko bëggee woon benn takk der bu leen dogaale kilifa bu yaanaamaar mi nu ci jotoon a teg loxo gaay yi fan ko jàppeek fanu ko bàyyeewaat mel na ni similaak saa bu weesoo looloot commissaire bu Médina moo àndoon ak élément am topp gaay waaye amul benn jiixi jaaxa wala jalt jalte bu ci amoon waa ñoo lànk ñoo bañ mujjee nanoo amal seeni mbir dugg car rapide yi njaganjaay yi biis yi tata yi jaaykat yeeg jëndkat yi ba ci képp ku doon tambaambalu jox nañ leen ca flyers yanu yoroon te nag lan ca bind moo di ne nguur gi danoo war a wàññi courant bi nu yokku ndax li ñu def fenn lan ko tegul kilifa bu yaanaamaar ne fii lanu yam waaye ëllëg dinañ dox ba ca pale ba ki jotoon a dox ba ca pale ba moo di seen naataango bii di Guy Marius Sagna moom ay mbiram gaa wax nañ ci te lan ca wax bokk na ci nan ko génne ca kaso ba nu nekk las ne gaa kay bi la yoon danoo gën a dogu ndax nag nee nañ bu nu bàyyul Guy Marius Sagna nguur gi fi nekk dinañ xam ni bés yi góor a koy bay la turbine ne lu ci man di am daal collectif ñoo lànk démb seen séddaleem flyers mi amal nañ ko nañ ko bëggee lii lépp nag yéen kaay bi média bi ne na la ko waral moo di ne nguur gi moo leen ñoo di transporteur ya nekk ca port autonome bu ndakaaru Sud Quotidien moo ko xëy bind ca xëtam journal bi ne ñoom moom la leen metti moo di ne règlement 14 ba nu leen bëgg a tegal ba tax ñu ni juróomi fan la ñuy xaatim ne duñ ca faste xànc ak moroom ja ñi nar a faste xànc ak moroomam ñoo di liggéeykat yi jëm ci wàllum wér-gi-yaram te nekk ci réewum senegal l'observateur ne naru nu caa weet ndax nag njiitu réew mi di président Macky Sall moo leen ca nar gunge sabab moo di jàngoro ji di coronavirus moom la ñuy bañ mu dugg ci réewum Sénégal ba tax journal Futurs Médias bi ne gaay yi boole nañ seeni doole ba noppeet njiitu réew mi dooleel leen ngir ñu tegi pexe ba mën a araftu jàngoro ju ni mel moom njiitu réew mi di président Macky Sall gaa yu bëri nenan moo dàqalu Moustapha Diakhaté ci biir APR le quotidien yéene kaay ne waaye moom Moustapha Diakhaté di ndayi mbill gi di ki nu dàq ci biir APR nee na mbindeef mënu koo génn ci biir APR te it day wéy di des ci biir APR ba noppeet leneen loo xam si moom mi fi nekkoon njiitul groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nee na tey jii dina wax ba àdduna wërngal këpp dégg ko La Tribune ne gannaaw Moustapha Diakhaté mi nu dàq ci APR Mary Teuw Niane tamit na moytu boppam mooy bu moytuwutu moo ciy topp gaa yi ñoo ngi ci ay tànkam Mahammat Boun Abdallah na tamit ci APR la bokk moom mi fi nekkoon ilimaani jëwriñ ci ay jamono buñ ci boolee ñi nga bu Faas Omar Pène Golbert Diagne ñii ñëpp l'observateur nee na jot nañ leen a tàggate deewooguñu mu ngi noonu nekkoon kon as lëf ci li yëglekaay yi xëye suba ak tey jotaayu midi culture wàllu musique lañ koy jeexalee tey Kumba Gawlo Seck lañ leen andil ci woy bi mu duppee bu ñaa ñu jële ko kon ci albumam bile di terroir ñu teew ak yéen ci midi culture di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99 point 4 ak ñu nu doon topp ci 3w point king fm point sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Kaderul Abdul Xaadir mi nekkoon ci ah, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Lamine Ndiaye digital euh, Cheikh Faye léegi-léegi kon alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wóoyal king feeling lu may loloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg midi culture bougez pas, c'est l'heure de la pub.